ndaje mi ginnaaw yàlla buñ sante yàlla wax wax alhamdulilah li ko sabab mooy sant yàlla rek am réew boo ca nekkee ba yàgg yëngu-yëngu yu bari tépp tépp ji bari war nga dellu ci ci suñ maam yi daan def surtout ñun suñuy maam jàngati alxuraan lañ woon moo tax ñu ñëw ay ubbee jàng alxuraan lu gat gàtt jàng nañ fi lu mat ñeent fukki kaamil am na ku jàng 28 yónnee ak liñ fi jàng kon dañuy jàng kaamil yi ñaanal réew mi ñaanal suñ mag ñaan suñ Muntaxa mu yàgg ñaanal suñu leader moom jàmm man mobilisation ñàkk ko woote la ñuy wax waaye saa moo ko wootee rek dinaa ko am ni ko bëggee ni ma ko bëggee ndax du ma wax lu nga xam ne ci man nit du ma wooyit jëm si ci man ma bañ koo wuyu nit du ñëw ci man itam wax ma soxlaa ma man ca dara bañ koo def kon yaakaar naa su ma wootee rek dana am li ma bëgg wax nañ ko suñu leader la ñun sañaan moo nuy jiite parce que li ñuy def moom lañ ci àndal li ñuy jariñ ci moom lay jógee kon suñ sañaan mu nekk suñu candidat keneen ku bëgg tamit da ngaa bëgg ña nga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 bu ñu xoolee nag gis ni kii bëgg na président man bëgg naa président waaye mënu ma nag bunt ministère bu ne tamit ma dem taxaw fa parce que sama dignité mayu ma ko sama liggéey ma yu ma ko li ma bëgg daal képp ko nga xam ne yaa ngi bëggal président fii dam nga xam ne man bëgg naa liggéeyal président te maa ngi ciy def sama loxo amul guddi na amul naaj xaaruñu ci président xaaruñu ci ministère am nay formation yi nga xam ne ñoom jigéen ñi am na ci yu bari yooyu xam nañ ko fas na ñoo yéen a dem ba xam fa muy jaay xam nañ ko gis nañ lee bi xam nañ machines yi gis nañ liñ man gis nañ mën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 am na ñu bari sax doon ne ma ko wooteel wooteel mais comme ni ngeen def nii kontaan naa ci képp ku nga xam ne dégg nga ko te sama baay la rek da ngaa ñëw kon nag yéen ñi ñëw teew sant naa leen gërëm naa leen sant ñëpp di leen gërëm